fekk fii orchestre yi fas yéene waxtaan ñoom ci domaine bi nga xam ne ci lañ nekk waaye tam ñuy préparé programme bu am solo incha allah rabi dinañ ci waxtaan ak ñoom waaye ginnaaw loolu dañuy nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi waaye tam mbokk internet leen nuyu bu baax a baax di nuyu képp koo xamante ne sa émission ta diine ak ngeen ci ànd ak soxna Salimata Morom damay nuyu nga xamante ni mooy Alfahim incha allah rabi ñu fas yéene waxtaan moom ci programme bi ayca balla ayca salaamaaleykum Alfahim aleykum salaam wa rahmatullah Seyda Sala lay nuyu bu baax a baax a baax di la ziara di kontaan ci visite bi wax dëgg yàlla balaa loolu ñuy nuyu mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan Elvision Média ñu nekk ci réew mi ñu nekk ci diaspora bi tabaarakallaa di nuyu Sénégal yëpp nag jaajëf. ayca mi ngi noonu waa yaakaar ëllëg lañ seet si fii tey ci géejo waaye ku koy alfahim nga xamante bokk na ci ñi nga xamante ne ñooy chef d'orchestre bi ñu fas yéene waxtaan ak moom rek mais bala ñuy waxtaan ak moom ci wàllu programme bi dañuy waxtaan moom ci li nga xamante ne yaakaar ëllëg kañ la judd ak yooyu noonu Alfayda yaakaar ëllëg kañ la judd. waaw orchestre yaakaari ëllëg ñu ngi ko créé le 25 des euh, le waaw le 25 mars 2009 euh, ci la ñu créé yaakaari ëllëg. mais dafa am ay mbokk yoo xam ne ñoo ko doon piloté maanaam ñoom ñooy membre fondateur yi mën nañ ci tudd kenn rek mu yóbbaale ñi ci des ñëpp suñu mbokk ngeen njaay ñu gën koo xam ci njaay bongo waaw donc moom ak ñoom Moustapha Dia moom ñu gën koo xam ci njaay kunda ñoom ñoo taxawee loolu tubarakallah ak mbokk yi ñu ko bokkal ñoom Amadou Thiam ñoom euh, soxna euh, Sofia Traoré ñom euh, Cheikh souleyman ba ci président orchestre bi di Assane Diagne tabarakallah depuis 2009 ngeen juddu ba légui yeen depuis 2009 ba légui am ngeen lo leen def ci digënté parce que man ci année bi la leen dégglé waaw depuis 2009 orchestre bi mu ngi émettre ñu ngi def ay single comme si que ñu ngi jouer ay concert live 2018 bi la leen dégg yeen ci la leen xam yow yaa ñu xam 2018. waxu leen dara ci diggante 2009 wax na ci loo leen nekkoon. non c'est-à-dire c'est-à-dire orchestre bi mu ngi def ay activités culturellement maanaam ñu ngi jouer ay spectacle live en même temps def nañ tamit ay production def nañu ay production produit bi njëkk def ñu ngi ko def en 2012 su ma juumul def benn single wa ci maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum bon ñu jógee ci loolu def nañu silsilati def nañu morceau boo xam ne waa Mourchid TV lañ ci way voilà ak bi bii ngay dégg nii nga xam ne gars yi nee nañ mooy toj dëkk bi jamono ji tarkaal. <laughs> kon yéen su ma xoolee ay single la ngeen def dafa gole album. non non yaakaari ëllëg defaguñu album c'est-à-dire dafa doon loo xam ne faw nga togg ko faw nga ko te yaakaari ëllëg benn philosophie la ñuy demee mooy école de formation la dire dañ lay forme culturellement ci cadre musique ci cadre way dañ lay former aussi sur le plan culturel te donc c'est un acteur bo xamné ne la en matière de culturel donc bagage yi ngay gis ni mom ko ci xarañ la ci am may Seyid Abdoulahi Balde waaw tabaarakallaa daal waaw mais daal yaakaari euh, avant ñuy dugg ci musique théâtre lañ njëkk def c'est-à-dire en matière d'art des fois da ngay météo selon ni jamono di doxee parce que boo nekkee porteur de voix des fois da ngay am ay piste yoo xam ne ñooy gën a possible pour nga mën a véhiculer sa message parce que ñun suñu objectif mooy fexe ba inculquer nit ki mu xam boppam xam boroomam xam ay droitam xam ay devoiram ñu ne nag al musiqa xayru wasilatin lil binaa wa takwin ñu jël piste boobu comme euh, piste boo xam ne yaani alatun li taxaatub ñu jël piste boobu donc di ci véhiculer suñuy message mais teewul aspect théâtral bi ba léegi day fi warkal maa la wax la moo tax yaakaari ëllëg turu orchestre bi la moo tax yaakaar waaw yaakaari ëllëg nag foofu dañuy sawar ci tontu ci nit bu juddoo ay waajuram am na lu ñuy xaar ci moom ngir mu mën leen a jëriñ non seulement mu mën jëriñ réewam orchestre bi nag ay xale dong ñoo ko composé bi booyal ñu baal ma ci kàddu bi chef d'orchestre bi aussi booyal président staff mu ngi nee toog booyal gars yi di euh, artiste chanteur yi fi nekk aussi ay booy lañ donc ginnaaw nag ñun ay xale lañ te ëllëg dañu war a servir réew mi ñu tuddee suñu bopp yaakaar yi ëllëg parce que jàpp nañ ne réew mi war naa mën a compter ci ñun ëllëg culturellement politiquement même aussi ci cadre religion. album dama lan pour album wala 2018 bi fin 2018 bi euh, spectacle live préparé après le mais album bi projet la boo ne dañ ko dañ ko dañ long terme conception album commencé à travailler depuis 2015. 2015 la wax de 2016 2017 ba 2018 2015 maa ñu ngi travailler ci ci ci continue album c'est-à-dire man awma esprit wu sax ñu def album lool loolu laa wax keroog euh, kii c'est-à-dire waxin la quoi awma esprit wu ñu def album waxin la keroog maa ngi koy wax euh, soxna sa suñu mbokk mi Arfan ma ne ko dama dama bëgg ñu def album c'est-à-dire loo xam ne bu génnee da daan bëm ñëpp xam ne yaakaari ëllëg génn nañ daal ayca album la ñuy def <laughs> yéen koy pare wala jàpp leen kii pour def ko ñu ngi koy préparé déjà ñu ngi ci enregistrement yi burdu bii ngeen dégg nii avant goût la ci album bi mais ñu ngi ci incha allah seyaati amma qarib ay jëmi nonu batay ñi ngi fi ci way euh, marché bu bees sees si waa yaakaar la gis ngeen li alfahim ñu jot wax ci li nga xamanteni moy walu orchestre bi ñu bay ko rek mu may ñu benn morceau rek après inshallah bi ñu dugg ci programme bi may morceau ban nga ñu may euh, dañuy ajibu te bo xam ci bind xasida bi yëpp nag dellu ci cadre tawxiid parce que ñoom mag ñi suñu boroom rek moo leen ñor ñun ci seeni keppaar la ñuy roote moo tax damay faral di wax gaay naan la ñun diine képp ñu ñor ak naan caween ak musique donc ñu xool ajibu bi di ci bégal nag képp koo xam ne yaa ngi seetaan Elvision Média rawatina képp koo xam ne it yaa ngi béggee yaakaari ëllëg ñu la ci ñu ngi ci maanaam ñu la koy délicaté daal ci mi ngi ma sha allah mu nek ajbo day lay nek bind mi nga xamanteni su maam Chamat Tidiane Sy Al Maktoum radiallahu taala an bind wa yaakaari ëllëg doon ko wayal nonu mu nek morso bam solo ma sha allah amna solo ay ayca yéen morso bi kañ ngeen ko way waaw morso bi ñu ko composé morso bi ñu ko composé en suma juumul defena 2010 wa lañ def composition bi macha allah neex na léegi damay ñëw ci single bi ngeen mu jee génne muy burdu bi doo ko ñëw ci bee euh, burdu bi mhm. na moo tax ngeen bàyyi ba période gàmm ngeen génne ko kon da ngeen ko liggéeyoon bu yàgg denc ko wala demee noonu non liggéey bi nag c'est improvisé ah. yàlla xam na ko liggéey bi mhm. du loo xam ne dañ ko programmer lu yàgg quoi mais c'est improvisé mhm. cest à diir en matière daar da ngay météo selon ni jamono di doxee nga indi loolu c'est-à-dire chaque chose à son temps n'est-ce pas loolu la tubaab wax donc période boobu burdu dafa xew ñu nit ñu am esprit pour def burdu donc euh, composition bi mën naa wax ne même pas cinq jours ñu dem def enregistrement <laughs> waaw ñu dem def enregistrement donc dama ko dañu composer sound bi defe naa ci biir répétition yi ci la ci lañu arrangé morceau bi n'est-ce pas ci biir répétition yi mm-hmm. ci lañu arranger arrangé morceau bi c'est-à-dire man euh, si samay liggéey mooy mm-hmm. arrangement mm-hmm. pour man état état d'esprit la ku nekk am nga sa tous boo mën a apporter boo mën apporter par rapport ak sonorité bi quoi donc ñu liggéey ko dans l'ensemble mu ngi noonu fii lañ defee lépp nag tabaarkalla <laughs> moo nekk single bi nga xam moom lañ mujjee jox après incha allah rabbi léegi damay ñëw ci wàllu programme bi mhm. yéen da ngeen nekkee yaakaar ëllëg ba léegi yéen a ngi doog a doon def comme yeneen chef d' orchestre ko yeneen orchestre duñ koy defee yaakaari ëllëg nag depuis ñu créé ko en 2009 2010 mhm. mhm. la di def ay spectacle live ah <laughs> kon moo nekk comme ñaata kii ñaata édition. mënuma ko sax compter parce que bari na c'est-à-dire dañu am dañu mës am habitude. Mhm. chaque décembre. Mhm. ñu def dara. yaakaar yi ëllëg spectacle live bi njëkk a def mhm. ñu ngi ko def ci salon. beneen année bi ci topp. ñu jël ñu jël kër ñoom ngeen ci étage bi ah, ci kaw noonu. def fa bâche def benn 31 décembre bu tabarkaal la c'est-à-dire li waral loolu mooy euh, événement yu ni mel gis nañ ne euh, xale yi dañuy dañuy topp mbumbaay bi topp euphorie bi mhm. xam nga ñu ne ñun pour quoi pas mënuñoo canaliser ñu ñu am en tant que ay doomi julit ndax loolu dafa bokk ci li taaral diine ji comme sa émission bi donc loolu la ñu am nag esprit boobu tabarakallah chaque at ñu di ko def daaw ñu ngi ci ànd ak waa sabilu salaam de passage ñu ngi leen di nuyu vraiment nekk orchestre boo xam ne ñu ngi nekk fii géejaay yàlla nattu ñu tamit ci orchestre boobu encore ñuy travailler ndoo lu bëri tabarakallah orchestre yëpp la waaw kon loolu la kon yes dama koy nangu <laughs> c'est normal parce que nag euh, ñun ñoo opté pour li suñu mission ñun musique mooy suñu profession nee naa la sànq diine képp ñu ñor ak naan musique donc musique suñu profession la donc loolu la ñuy travail ak ñoom wax dëgg yàlla daaw ñoo ci concept ñu wax c'est juste pour ne ñëpp donc tableau bii nii loolu symboliser ci période boobu juste lañu ko lañu ko liggéey mhm. symboliser Guédiawaye benn bopp c'est-à-dire jaune bi mhm. li muy refléter mooy couleur yaakaar yi ëllëg parce que euh, yaakaar mhm. boo ko doon jox couleur jaune ngay jël jaune mooy signifier yaakaar donc sabilu salaam yoon ku nekk xam na ni tali dañ koy goudronné ba mu ñuul benn bopp la benn instrument la ñu téye mom la ñu dans l'ensemble parce que musique bi mo compté mission bi mo compté daayiratul Moustarchidine mo compté pour nous, Serigne Moustapha moo compté voilà gis ngeen nee na mission bee compté daayiratul d'Ina moo compté Serigne Moustapha moo compté mi ngi noonu ba tey euh, programme bi nan lay tëdd nan lay demee waaw programme bi day incha allah bëgg nañ ko defee euh, école Baobab bu marché Sam waaw incha allahu rabbi di ci invité Sénégal yëpp nag ñi doon xaar burdu en live ah. buñ ñëwee foofu dañ gis lu garaaw <laughs> sama gars yi moom tarkal seen yaram dafa tàgg fi ñu toll ñoom ñoom ñoom daraskees vito <laughs> ñoom afo seen yaram dafa tàng. dama nakkale ci ci ci ci artistes yi dañ may jaay géwale xamuñu fii la ëppee. jëlal lëpp may naa la lëpp <laughs> donc mu ngi noonu euh, concert bi nag tubaarakallah euh, yaakaari ëllëg. Nous ñokay jouer joué di ci invité waaw di ci invité mbollem orchestre bu Sénégal di ci invité tous les animateurs di ci invité aussi bép méloman parce que nous, avant ñuy nek ay musiciens ay que nous. avons nek bi ñuy def nous suñuy grand frère ñoo ñu donc ñom ñu nous wax né ñom ñoñu ñom virus bi quoi donc lool la di ci invité bép méloman di wax ne nag incha allahu taala képp ku fa ñëw ku nekk di nga dégg musique di nga dégg ay way ba heure lay commencé. incha allah am ñu yéene mu tàmbale plutôt vingt une heures ñu débuté mais bëgg nañ incha allah vingt heures ku tardé doo am place lii moom man maa ko wax te fii laa ko waxee ci télévision média vingt heures ku mu fa fekkul doo am place donc vingt une heures ci kàttanu yàlla dinañu débuté. ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bëgguñu zéro heure di ñu fa fekk parce que dëkkuwaay dafa sori te jamono daa xaw a naqari donc loolu la daal. foofu noonu dama ci xuus bu baax a baax mu nekk orchestre yi xam kii concert yi nga xam ne day guddee franchement concert ni muy guddee ëpp na trop yéen waa Amas ak Carrefour des animateurs artistes yi nekk foofu mhm. yéen laay waxal. Mhm. waaw concert léegi zéro heure. au plus tard duñ duñ dina fekk mu jeex. Mhm. waaw cest li waral loolu mooy ñun sénégalais yi dañu am benn benn feebar. feebar boo xam ne wàll na ñëpp moy feebaru heure lañu am da ngay jox nit ki par exemple 17 h mu tok ba 18 h parce que li muy def ci bopam moy ax ah, suma fa demee 17 h duma ma fekk kenn boo defee noonu sa morom def non sa morom def non mais 17 h du fa fekk kenn donc lolu aussi il fallait que nit ñi tamit di ci bàyyi xel moy ñun dinañu nekk en place heure bi ñu joxé ci kàttanu yalla dañu fekk ñu nekk en place. mais tamit comme que nit ñi ñoom ngay defal animation ñoom ngay jouer ñoom nga war a bégal mhm. bu ñu ñëwul tamit doo am sañ-sañ pour jouer il faut nga xaar leen ba ñu ñëw mhm. donc doo fa nekk di tëggal ay siège kese donc loolu mooy li ci nekk mhm. foofu encore une fois dañuy ñaan ñit ñi incha allah ñu teel a ñëw ndax ku yéex ku yéex gisuma la mbaaw. <laughs> lii laa wax man. bu <laughs> subaa nga leneen <laughs> waaw mi ngi noonu gis nga conseil bi nga xam moom la waa waa yaakaar ëllëg di di di di waajal mu nekk samedi incha allah rabi ah. le 22. le 22 mu nekk conseil bu am solo muy am ban fan lay amee. nee nag le 22. Mhm. incha allah match bi 2 heures de temps koy fubal. Mhm. chaque 2 minutes day am mi-temps. Ah maa wax lii. <laughs> ban fan lay amee stade ban. Euh, ñu ngi koy defee école Baobab. boo ñëwee ba croisement Sam mhm. pour ñi nga xam ni. ñooy jógee parcelle bu ñu ñëwee ba couragement sàmm maanaam bu ñu jógee golf ñëw ba couragement sàmm dañuy dañuy dañuy dañuy jàdd seen góos mel ni ku jëm ci kër sër yi école Baobab ak kër sër yi ñoo jëlloo ñuy jógee fii Géejawaay par exemple marché bu bees bu ñu demee ba couragement sàmm ñoo ma gën a xam ñi jóge amosis ñuy jóge ci gox yi fasantikoo yi ku ñëw ba couragement sàmm rek incha allah di gindiku ci kàttanu yàlla waaw lan moo tax ngeen choisir le 22 xaaroo leen ba 31 donte que da ngeen da ngeen da ngeen ni pour ñi nga xamante ne ngi dem ci safaan wax. 24 mhm. le 24 décembre 20 31 décembre. Mhm. xam nga ñoom bu ñu ñëwee le 22 le 24 mën nañ dem ci leneen. dëgg la li waral loolu mooy. ñun dañu mës a am yéene ci ñaari dates yi lañ daan faral di jouer. 24 mhm. wala 31 wala 25. mais esprit boobu ñu am dem nañ ba gis ne. nit ñi ñu ngi commencé di am esprit d'ouverture boobu nous. di organiser événements le 24 wala nangam sangam daaw am sax ay coïncidence ci am mais pour man amul solo mhm. pour man li compté li normal musique bi ñuy def mhm. na dox na consommer mhm. na comprendre aussi ñun mission bi ñuy comprendre donc la comme que nag ren am na ay dates ci orchestre yi wax dëgg yàlla lool li muy symboliser rek mooy gars yi ñu ngi liggéey mhm. tabaarakallaa mhm. gars yi jàmbaar lañ de. wàllu musique bi laa ñëw noo gisee musique arabe pour l'instant. waaw musique afro orientale. musique afro arabe. musique bu la neexee de waaw am nga ci plein droit. <laughs> non xeex du ci am ndax maa la mën <laughs> donc waaw musique bi nag mhm. d'une part mu ngi dox. d'une part mu ngi dox may léegi doo toog trois mois te déggoo ne am na orchestre buy tëgg donc ci aspect boobu mu ngi dox bien vrai que amuñu ay promoteur yoo xam ne ñu ngi ñuy promouvoir pour ñuy def ay activités mais gars yi ci seen njàmbaar ñu ngi def ay activités donc ci aspect boobu moom culturellement mu ngi dox comprendre nga mhm. gars yi aussi ñu ngi def ay production di génne ay album di def ay clip donc cinq ans ci ginnaaw loolu amul woon par rapport ak ren da ngay sentir ne taqaddum mu ngi am avancement mu ngi am donc moo tax ma ni d'une part mu ngi am parce que production mu ngi am spectacle mu ngi am mais d'autre part doxul nañ ko wax na d'autre doxul li waral doxul mooy Euh, ñun musique bi ñuy bi ñuy def mm-hmm. dafa tumuraanke ci réew mi bariwul ñu koy consommer mm-hmm. wala bu amee ñu koy consommer benn benn majorité la mm-hmm. boo xam ne c'est limité faw ñu wax ko te dee looloo fi nekk benn majorité boo xam ne c'est limité mën nañ ci tudd rek comme par exemple daayiratul mustarchidine parce que kilifa gi moñu ci nampatal mhm. ñun sommes artistes musiciens mhm. grâce à Serigne Moustapha si mhm. Al donc ci aspect bobu motax ci niveau bi nañu wax musique afro arabe comme nous uh-huh. comprendre musique afro arabe man dimension ci c'est-à-dire xam mission kenn ku nek da ngay ñaan keneen ku ko comprendreul mm-hmm. di ci wàll si mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. ku ko mësta xam di ko comprendre parce que loolu yëpp pour man li ko waral mooy spectacle yi ñuy def produit yi ñuy génnee comme ay clip comme ay album affaire yooyu noonu donc loolu la mais li tax ñu ne doxul mooy ci début bi sànq wax naa ne suñu musique bi ñuy def daf féetum ranke parce que dañ koo canaliser ci dimension wu arab donc boo jàngul arab waroo koo déglu ah. nit ñi esprit boobu la ñu am alors que en matière daar loolu amul suñu mbokk artiste Coumba la Seck def na benn produit bu am solo keroog maa ngi dégg gars yi di ci di ci wax mais mais mais mais c'est normal. si xalaat jëlee kii bi. waaw instrument waaw c'est normal c'est normal c'est normal parce que xamala moo tax loolu may wane ne par exemple li ñuy def ñun mu ngi dund. mu ngi dund waaw. parce que Boussoukoumba mm-hmm. Gawlo Seck lañ gis mm-hmm. mais mu xam kii euh, Mouhamed mm-hmm. moom tamit wayam bi am na yeneen artistes yoo xam ñu ngi ci safaan ba te ñu ngi ko way. voilà voilà. c'est-à-dire xale jigéen yooyu may gis ci kii. c'est-à-dire na même bu dul loolu ñun découvrir nañ beneen mbalaxmaan boo xam ne ci jamono yu ose yi di am. def na fi production. QG produit bi Sabilu Salaam la bokk. ay membres Sabilu Salaam ñoom ñoo def kër bi. Malick Niang moo woyoon xaw ma pikiir ma xaw ma. ñun ay musiciens lañ ay artistes lañ ci town bi lañ dëkk comprendre nga donc wa sabilu salam ñom xafsa mm-hmm. de passage ñu ngi leen nuyu ak ñom ulay ñom ndayasu ñom ñoko awu mm-hmm. xam nga kooku par exemple comprendre bi mu comprendre nekkat li c'est un volet artistique bo xam mm-hmm. nit ku nek war na ci mëna bay waram motax peut-être mu def ko mais musique bi comme ni nga waxé ci walu ku déggul arab doo ko dégg pour man musique bi olof fee ëpp légui c'est normal parce que Angèle ko single. Mhm. wala nga génnee album booy xool trois morceaux la ciy def wala kaaraab yëpp olof lay doon. c'est normal parce que xam la moo tax. Ah. al musiqa mhm. li taxaatub mhm. te boo bëggee véhiculer message da ngay véhiculer message ci langue bi nit ñi dégg. j'aime ça loolu dara nekku ci. way olof ak way at way arabe ak dara nekku ci. c'est-à-dire ñun suñu mission mooy. xasida mag ñi. na ko nit ñi découvrir. ci olof ak ci arabe yëpp. xasida mag ñi mhm. bi ci nekk mhm. nit ñi donc loolu bi condamné wolof du mhm. donc pour man c'est la musique donc musique pour man tout ce qui est agréable à l'oreille pour man musique la donc loolu la voilà. <laughs> Aïcha mi ngi noonu moom ci wàllu aar lay wax noonu moo taxit dañuy bàyyi léegi comme suñu heure baa ngi waaj mhm. dem dem. Mhm. Alfahim euh, waa yaakaar ëllëg lu ñuy pare. yaakaar sans programme bi. sans programme bi mhm. ñu ngi pare vidéo clip. ñu ngi pare album. ah bon voilà bu leen fi def clip bu njàllaxaande xool ngeen waa xale fii seen clip bi ah. nice macha allah Mamor Diouf Sapo. taw fii gis nga seen clip bi bees. Khalifa Thiam ak groupe am Sapo. kon def leen ñi ñoom. yow aar laa lay tegal nii de booy. Uh-huh. bu ñëwee di xam lépp dëgg la mm. waaw. mais 2019 pare woon na Pulif album. am nañ ci yéene incha allah bu ñu ko jamono mayee rek ñu def ko incha allah ci kàttan yàlla. damay bàyyi nga def say remerciement nga annoncé waale ci wàllu programme bi donc ñu ngi remercier képp koo xam ne. Mm-hmm. contribuer nga ci orchestre yaakaari ëllëg. Mm-hmm. waa yaakaari ëllëg ñu ngi lay jaajëfal. Mm-hmm. tabarakallah Euh, képp koo xam ne it passé nga sa temps même bu dee deux minutes la sax mm-hmm. ci besoin yaakaari ëllëg ñu ngi la ciy remercier di nuyu sama artistes yi mm-hmm. Ndeye Gueye mu ngi fi mm-hmm. Fatima Ciss Dieyna Cillo euh, Cilli mu ngi fi tabaarakallaa ñu ngi leen di nuyu Abdoulaye Balde Cheikh Tidiane yi El Hadj Loum Abdallah ñu gën leen a miin ci bingo ak dinga <laughs> tabaarakallaa uh-huh. ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax a baax macha allah di nuyu euh, Ablaye Ndiaye di percussionniste mm-hmm. Pape Wade Vito batteur mm-hmm. di nuyu grand Arfan Sarr mm-hmm. instrumentiste la moom it tabarakallah Seyid Moustapha Sadj ñu ngi koy ziyaara bu baax a baax a baax ak euh, képp kuy membre ci staff yaakaari ëllëg spécialement nag di euh, remercier président orchestre bi di Assane wax dëgg yàlla ñu koy remercier bu baax a baax a baax di remercier way jur yëpp nag tabarakallah képp ku mës def ñaan pour orchestre bi avancer rek ñu ngi lay remercier di remercier aussi di nuyu tamit euh, orchestre yi euh, firaq yi fi nekk yépp mhm. tabarakallah donc euh, tabarakallah daal. Mhm. yàlla baax na jox rendez-vous le 22. le 22 décembre. école Baobab ak waa yaakaari ëllëg. entrée bi 5000 la. 2000 mhm. 1000 francs. donc ku ñëw ba foofu nag boo amul entrée boo ñëwee ba foofu mhm. di nga gis ñoo xam ne dinañ la mën a jaay ticket daal tubaarkalla mais daal ñu ñaax nit ñi rek mhm. pour à ce que ñu teel a ñëw ku tare doo am place de ah parce que déjà mhm. déjà billet yi mooy loolu ayca mi ngi noonu waaye yaakaar ëllëg lañ lay indi loon ñuy waajal programme bu am solo di programme bi nga xamante mooy am samedi incha allahu rabbi le 22 muy am fële ci école Baobab fii ci Géejawaay euh, marché Sama mhm. waa marché Sam boo ñëwee foofu rek incha allahu rabbi di ngeen mën a dégg euh, musique musique beeg yooyu noonu pour mën leen a wan yoon bi daal saa su nii lañ ko defee sa émission taaru diine ji euh, waa yaakaar ëllëg lañ ñëwoon tey fii nii. ci géejuwaay masawu bees ñëw waxtaan ak ñoom ci programme yi xam moom la ñuy préparé waaye tamit ak si orchestre bi xuusuñu ci bu bax mi xam naa la prochaine fois nañ ci xuus incha allahu rabi dama koy bàyyi mu jeexalee ak uh, single bi nga xam moom lañ mujjee génnee ci gàmmu gi muy burdu bi mu nekk single bu am solo single bu neex dañ leen jox dig daje ba beneen émission incha allahu rabi waaxir daawana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu El Vision Médias abonnez-vous alhamdulilah Senhor, salvo